ko waxee c'est-à-dire déjà stratégie électorale bi nga xam ne coalition bi teg na ko gis nga ko je pense que ñoo nekk la seule coalition qui a pu quand même sillonner le Sénégal de long en large avec euh, ñaari axes yi nga xam ne Diomaye wàcc fii ko wàcc fii donc ça nous a permis quand même d'avoir une euh, comment on appelle encore campagne bi nga xam ne malgré le temps record malgré la difficulté des horaires du Ramadan on a pu sillonner le terrain et que ñu fa demee lu ñu fa gis moom mooy dafa am benn adhésion benn adhésion bi nga xam ne gëj naa ko gis Sénégal maa ngi ko doon faral di wax ñi ma doon àndal ci campagne bi muy rencontre yi nga xam ne gis nañ ko dans la région de Diourbel mais lu ci gën a doy waar mooy li ñu doon xaar Mbacké donc loolu yëpp baromètre la woon en réalité donc lu ñu doon ñaan yàlla moom mooy euh, perception bu ñu amoon ci terrain bi mu traduire en vote électoral. et que li ma bëgg a wax mooy euh, li génnagum ci urne yi ndax jàpp nga ne mënul wane leneen lu dul euh, li li maanaam ndax euh, jàpp nga ne loolu mooy continuer ba indi une victoire finale parce que li génnagum jeexagul foofu la foofu laa bëgg parce que li génn ci boppam dafa nekk centre de vote yi nga xam ne ñoo gën a représentatif xam nga je parle sous le contrôle d'un politologue un promotionnaire que je salue <laughs> effectivement a le droit et la science politique à Dakar donc loolu tey fu muy yóbbu moom mooy daa am li nga xam ne gis nga diaspora bi baromètre la déjà premier résultat yu njëkk a jow tendance yooyu tey dafa confirmé wu confirmé wu ba ci bureau de vote bi nga xam ne foofu la Macky Sall voté à Fatick ñu nga gis écart bi am boo xoolee par exemple à Touba la plupart des bureaux de vote on te dit que Diomaye Faye 283 21 Amadou Ba kooku remontada bi mënta am ci guddi gi bu ñu waxante dëgg d'une certaine manière donc léegi sans prétention mhm. tey raisonnablement tout l'espoir effectivement que am na benn victoire bu net bu précise bi nga xam ne effectivement ça se dessine dès le premier tour d'accord et que tey li gën a renforcer loolu moom mooy lu sénégalais yi doon laaj sénégalais yi ils demandaient pas grand chose gis ngeen ko sénégalais yi metti wuñu diriger ñoom lu ñu bëggoon mooy ñu bàyyi leen ñu dem élection ñu soisir seen président tey xëy nañ comme nu ñu ko doon waxee xëdd dem voter ndogu jubilé <laughs> léegi nag gis nga ba ñu ndogoo ba pare génn nañ sécuriser tey population bi ñu ngi ci rond point yëpp ci carrefour yi parce que jàpp nañ ne tey on doit les laisser élire leur président et que deuxième acte bi moom mooy sécuriser victoire mhm. tey pour jeexal meilleur service bi nga xam ne Macky Sall dernier service mën na ko rendre au Sénégal et à la nation sénégalaise effectivement c'est d'organiser et d'encadrer le processus de passation merci